noonu la ñuy ñoom moom la ñuy def donc c'est les mercredis et les samedis lañ lañ leen di yore donc ak tamit chaque année ñuy organiser événement boo xam ne dañuy présenter seen i i création yow bu Mouhamed boo dof dofloo ba xale yi créé fi lu la jommal danaa la dóor ba nga tëdd <laughs> ah, nee daal daa aay de sa tur wi sell na nag waaye Diop Mohamed Diop laay wax sax balaa ma léegi docteur Khady ñu bàyyi la nga yeggali. waaw donc ñun nag suñu programme ñun deux ans la ñuy tàmbali. donc ay xale yu ndaw la ñuy yore. Mhm. donc te programme bi gën a ñooñ jotuñu leen indi tey ñoo ñooy kër gi foo parce que boo xoolee tamit Sénégal fii dafa am problème jouet xale yi du ñu nekk si ay fowukaay ay jeux éveillés yooyu noonu. Mhm. donc dès basage dañ leen di commencer di leen inculquer science à travers ay jeux. ak ay kii ñuy manipuler di bricoler et cetera donc après programme bi si topp nag mooy bi ñu teg moom la ñuy woowee Kër Science donc programme boobu noonu tey xam naa ne xale yi moom mën nañ ma ko gën a expliquer mais boo xoolee objectif bu programme boobu mooy ñu tabax kër kër goo xam ne day muus waaye kër nag dafa am ay composante yu bëri parce que boo xoolee fii Sénégal si école yi dañu tàmm si àdduna bi sax di tas xam-xam yi ne la mat fii ne la chimi fii dugal la fii observation fii alors que yëpp boo xoolee booy nekk chercheur wala nga nekk innovateur conjugaison waaw yëpp ngay boole orthographe waaw donc station léegi nag man maa ngi leen di bàyyil xale bu njëkk bi donc mooy Mambay Mambay waaw dafa am mu créé moom waaw moom mooy ñëw expliquer boo xoolee yi nga gis yëpp xale yi ñoo koy créer parce que dañ leen di jàngal collaboration. yow daal léegi yow docteur Khady daal su ma déggee li nga bëgg a wax mooy. waaw léegi yow présenté nga association bi. waaw booy yi ngay bàyyi. ñu def une explication détaillée de tout ce que yow lan nga créé. ñun ñëpp ñoo ko créé du man rek maa lan nga ñuy présenté kon ci yéen ñëpp lu ngeen créé lan la. kër bu ñu di ko réalisé si kër science. kër. waaw. yéen. yow ñaata saa nga nekk sa micro comme ça ñu dégg li ngay wax. 11 ans la waaw. da ngeen a tabax kër yen ñaata ngeen. ay côté 20 yooyu rek. 20 ngeen. waaw. da ngeen a tabax kër xanaa këru fowukaay la. déedéet. non mais teel nii sa micro bàyyi teel la ay kër fowukaay ngeen tabax. déedéet. kër dëggantaan Njaay. am ay néeg ay ay néeg affaire yooyu. waaw. waatal. barki <laughs> yem nga waaw. yow 11 ans nga am tabax kër. Hmm. man je me sens nul à ce moment bu eh, lii kenn du ko def mag. man du ma sa morom dégg waa kaay nga wan ma fan nga tabaxee kër gi kër gi fan la ne. Eh, mooy ci. lii mooy plan wu kër gi. mais kër gi bi ngeen defar kër gi sept ans nga am. waaw booy yaa may gën a toroxal di <laughs> lii lan la. lii lii lii mooy kër gi. xanaa kër gi pour jinax yi la. déedéet. pour neen la. ay nit. nit. du kër bu mag ku ndaw la rek. la quoi. waaw mais boo amee jinax mën nga ko denc fii. waaw. wala lapin. waaw. mais naka ngeen defaree lii. ah ah bois. bois bois ça saute aux yeux. mais avant ñu def fii dañ njëkk a dessiné si ay feuilles. après ku nekk defar plan am après ñu boole plan yi mu nekk benn. Mhm. ñu ñu defar kër carton mais kër carton boobu nag dafa tawte woon. bu tawtee dafay tooy. waaw moo tax ñu choisir kër bois bi mu gën a dëgër. fee mooy façade bi façade boo duggee rek jardin bi ngay jàkkaarloo. d'accord avec sa droite garage. garage mënu mënuñu fa def buntu mu ndaw ndax oto bi dafa mën a jàll moo tax ñu def fa buntu mu fii cuisine bi la. fii fii espace familial. fii mooy cuisine. waaw. fii espace familial. waaw fii. salon la. salon. waaw fii lan la. fii fii espace espace rek la. espace la balaa nga yegg si. si kii toile toilette yi fi nga tegoon nag wóoru toilette extérieure yi. bi moom boo jógee ci buntu kër gi balaa nga fi yegg si di nga sori de. kër gi ay xale lañ woon rek. Ah, mais léegi su ngeen doon defar toilette bi fan ngeen koy def. beneen plan bi dañ ko defal. dañ léegi wàccal ñu ñu ñu ñu ñu defal nii defal nii léegi. kër gi. Hmm. toile bi fi mu nekk dafa sori. waaw ah pour pour pour kii to kii enfant yi accéder bu ñu xam na ñoom enfant te tam bu ñu defee salle de bain si seen toile si seen néeg yi wóorul. waaw léegi hmm, bu ñuy dem toile dañuy dem ba si toile extérieure bi dem toile. d'accord donc y pas besoin de faire toilette extérieure. Hmm. lii lan la. bii chambre enfant la. chambre enfant bii. bii chambre parent chambre parent dafa am salle de chambre parent moom a salle de bain. waaw lii. bii espace sec la tamit. lee la la. fii. non côté bene. côté bene espace la. espace la parce que sur le plan que tu viens d'enlever j'ai vu une piscine. waaw y a pas de piscine dans la maison. lee la local technique bi local technique. mooy fi ñu connecté kii fil yi nekk ci kër gi yëpp. ay fil. pour lan la. fil yi mënuñu ko jaarale ci kaw suuf lañ ko war a jaarale. techniquement. Oh. les fils ne doivent pas passer en dans la maison parce que ça fait ça pas joli mm. très bien. kon yow lii bi nga amee sept ans nga koy defar léegi bi nga nekkee grand lan nga defar. beneen ko leen defar bu 2021 bi. kan moo ñu koy présenté boobu. kii maa leen ba ak Daba Gueye Daba Gueye. Daba Gueye mooy Roxaye Gueye. Roxaye jigéen defar kër. ko fay fàttali ma sa tur. El Hadj Mbaye Ndoye. El Hadj Mbaye Ndoye eh, dégg ku la wax noo sant da ngay wax El Hadj Mbaye Fall dégg nga d'accord merci beaucoup. dama taxaw ne la eh tàccu leen ko s'il vous plaît. Daba. tu peux prendre le micro. Rokhaya Daba. elle va nous présenter quelle maison celle-là. plan de le plan processus bi la ñuy expliqué. waaw le plan de la maison. Uh-huh. d' accord kër gi nii la nii la taxawee. waaw ma jàppale la. non grave. Uh-huh. léegi kay mais mais toi là tu nous expliques. ça va euh, yéen a ngi koy am wala ma def nii Cheikh Laye c'est bon madame Sidaba d'accord Daba attends j'enlève les décorations là parce que baal ma rek c'est pas grave ma chérie. Hein? comment vas-tu. ça va ça va. ça va. Euh, yow mburoog mayonnaise ak mburoog thon bu la gën a. ah mayonnaise ak mburoog thon. waaw gën a. mburoog mburoog thon. thon ah. Ah, parce que thon dafa saf. waaw yow saf. allez on y va maintenant tu vas nous présenter. Euh, je m'appelle Rokhoye Gueye. Rokhoye Gueye Ndioro. je fais la classe de sixième j'ai douze ans. sixième dagg ci kay alandeer may ma jël wala sixième secondaire. Euh, secondaire. macha Euh, biñ doon réaliser kër gi dañ dëgëroon fit rek ñoo defar kër gi kër ngi dëgër fit je te rassure ma chérie. <laughs> Euh, kër koy defar maa ngi am huit ans léegi dañ réaliser waat beneen plan bu bees léegi plan bee nekk nii avant tout da ngay njëkk a jot porte d'entrée bi après boo duggee ci porte d'entrée bi à gauche nga jël garage bi garage bi mën nañu ci def porte bu. ndaw parce que oto mën na ko écraser loolu moo tax ñu def ci porte bu mag. Mhm. léegi biñ ko defee pot bu mag borom oto mën na gaare génnee fii loolu moo tax ñu def si porte boo xam te dafay génne léegi si digg bi moo am serre léegi boo paasee serre bi à droite nga jot. local lan la. serre foofu la ñuy def ay fleur dañ koy protéger en verre mën nañ si def serre en verre ah yooyu da koy. mooy genre passion yooyu. waaw loolu serre la tudd. waaw mooy serre de. <laughs> waaw bëre waay. <laughs> aywaay Fall. xale yaa may jàngal de. wallaay. waxala jàngal ma toog mbedd mbedd Kaolack yi di wër rek. moo tax waa continuer yow doom. nga jot local technique bi foofu la fii li nekkee pour alimenter lampe pour ñu mën a tàkk léegi boo paasee local technique bi. suñu kër amul local technique. local technique. kon kër yu bees dafa war am local technique. ah mais foofu ngay bricoler say mbir. yow continuer local technique. après <laughs> nga jot jardin bi jardin bi nag moo am piscine nii. léegi boo passé jardin bi un nga dugg ci biir kër gi léegi kër gi moo am cuisine ñaari cuisine bi am na ñaari fenêtre kër dafa war a am aération warul lëndëm tamit léegi boo passé cuisine nga jot salon salon bi moo am ñetti fenêtre a benn porte boo passé salon bi nga jot toilette invité toilette invité mënuñoo def fenêtre yi ci digg bi parce que wóorul mën nañ gis kii nekk si biir loolu moo tax ñu def ko si kaw léegi boo paasee toilette invité nga jot buanderie foofu la ñuy fóotee foofu la machine à laver nekk boo paasee buanderie nga jot. espace familial wala may mun a sekk muy fete rek waaw. foofu kii espace pour féexlu la tamit. booy ñoo taxaw seen kër nii tuddee ko kër science yéegaleel. nga jot chambre enfant chambre enfant warul am salle de bain parce que wóorul. moo tax à côté ñu def toilette enfant boo paasee toilette enfant nga jot. patient pourquoi chambre enfant warut am toilette salle de bain. parce que wóorul. man euh, mën nañ si yow tamit. du du du du kenn du ko yëg. oui xale yi mën nañ nekk si biir c'est vrai. mën nañ tëju tamit mhm. moi je savais pas mais merci quand même. waaw après nga jot patio foofu tamit espace pour lu la boo paasee patio nga jot chambre parent chambre parent mën naa am salle de parce que ñoom xam nañ ne ay mag lañ man nañ si accéder o salle de bain Sambour parent moom da koy am. ah merci euh, ma chérie. Hein? Ah. pour pour réaliser cette maison il faut combien de mètres carrés. Mmh. 150 mètres carrés 200 mètres ah loolu de moom wax dëgg yàlla faaw nga dem ba ñàkku rab. léegi ñan ñan léegi Dakar fii foofu ñoo topp si présentation Ablaye Ndione Ablaye Ndione lan la ñuy présenté. moom porte yi lay présenté ak yooyu. porte nga ñu porte yi Ablaye merci. merci beaucoup Rokhaya Daba Guèye Nioro. ah tàccu leen Daba. grand jarul nga may dosé de non non c'est pas parce que ay scientifique ngeen rek ngeen ñëw fi di dosé ah. macha allah jàngal leen ñu lu baax ngeen toog ba xale yi léegi ñëw duñu jàngal télé yi. merci d'abord. maa koy remercier bu baax. man nag doo ma remercier. avant tout maa ngi lay nuyu ñi ñëpp ñu seetaan plateau bi. jërëjëf man maa ngi tudd Abdoulaye Ndione am 12 ans di def cinquième secondaire comme ni ko Dawa waxee rek. <laughs> bi may am 12 ans maa ngi CM2. Pape doo def lii mooy kii cinquième secondaire la nekk. Oh, Pape waaye àdduna bi dafa changé waay. Papel lii. maa ngi def sama septième sëg sëmd. kii waaye lii lan la. Ablaye bàyyi leen toroxal yi ngeen may toroxal di bàyyi. man du ma seen morom de. <laughs> waaw gannaaw. man du ma seen man booy du ma seen morom de. ah <laughs> waaw ajo ajo ajo Ablaye continué la. yaa ngi am 12 ans. waaw yaa ngi def cinquième secondaire. waaw du dëgg defoo cinquième secondaire. quatre kii ngay def CM1. <laughs> allez on y va. <laughs> nga am aménagement fii aménagement de mooy li nga xamante ne comme genre escalier da lay permettre que si biti bu inondé mu bañ dugg si kër gi. lii porte la double porte double porte mooy porte bi nga xamante ne dafa am ñaari façon porte bi la ñu woowee porte simple porte simple mooy porte boo xamante ne benn la bëri na si kër gi ñu gën a dugg ma expliqué la. Mm-hmm. boo gisee lii day symboliser fenêtre. ah loolu ay fenêtre lay symboliser. waaw lii mooy porte tierce porte tierce moo xam mooy porte bi nga xamante ne daam benn bu mag ak benn bu ndaw lii vitre la mais du ubbeeku lii porte bee vitre la coulissant. Hmm. porte yi mooy porte yi nga xamante ne day dugg si biir mur bi mën na nekk automatique mën na nekk manuel nga pousse ko comme genre bi boo gisee tam mur yi. tam am baar yi mooy mur de collectif mur de collectif mooy mur boo xamante ne du laal plafond yi. mur yi nii mooy mur porteur mur porteur mooy mur bi nga xamante ne day laal plafond bi. maanaam dafay bokk ci coulage bi si kaw. waaw très boo gisee fii ubbi ñu fi fenêtre parce que mur mitoyen mur mitoyen moo mooy mur bi nga xamante ne kër jàmbur la féete ci bokk loolu moo tax. <laughs> waaw loolu moo tax mënuñu ubbi fenêtre ndax c'est pas sûr te loolu àq la. pare ngeen ci kuy ñëw. maa leen maa leen di baax Mouhamed merci. kon moo si topp. si Ngol Ngol ne vient pas on fait l'émission jusqu'à midi parce que booy yi dañ ma bëgg a toroxal si dëkk bi te dinaa leen wan ne man tam mën naa. kii toit bi toit bi. Mouhamed. Eh. Mouhamed. <laughs> ana Cheikh Laye. Thiela. on y va. yow yaay. am prends le micro. ça va. waaw maa ngi tudd Mohamed Sène maa ngi tudd koy di def cinquième maa ngi am 12 ans. léegi xoolal tournel nii nga waxaat si kaw. so entre temps sama copain di di créer ay bricolage am. parce que vas par présenté wul. présenté li ngay di waaj a def salaamaaleykum maa ngi tudd Mohamed di def 5 jàpp si jaajëf waaw waaw Baye jàpp naa ko léegi tubaab bi dañ na. on fait quoi avec. kër gii nii comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi ko réaliser ci deux mille vingt et un bii nii. Mhm. bii nii njëkk defar mais dañoo fàtte woon yenn yenn détail comme fenêtre yi yi te te toilette bi fiñ ko fiñ ko woon baaxul daa jàkkaarloo woon ak salon bi mais kër gi biñ koy commencé dañoo njëkk dañoo njëkk a tra dañoo njëkk a tracé ku nekk si sa feuille après ñu dajale ñu dajale dessin yooyu yëpp de ko ci benn feuille muy nekk plan bii nii. kon kër gi ñu ñu présenté moom ngeen ko symboliser nii. léegi bi ñu utee plan boobu ba mooy plan bii bi ñu ko kiiwee ba pare dañoo jël dimension yi ñu testé ko ci plan ba yëpp tolloo mais collé ñu ko woon boobu dañ ko testé ba yëpp tolloo ñu commencé ko collé bi ñu collé yëpp ba pare. si lañ imprimer porte yi ak fenêtre yi c' est imprimé en 3D bëri moo imprimé. kon porte yi ak fenêtre yi utu leen ay lañset di ko dagg. non non vous avez imprimé ça. ak ah, lal yi tamit. lal bi euh, Asmalik mën nga ñëw filmer lal bi gars yi nga xool lal bi jege si nga xool lal bi moo sax dimbale ko waaye mu mu jege fi mu mu mu xool mu xool biir kër gi booy niñ ko def lii mooy fi ngeen doon wax. seer seer. mooy seer yi li ñu xamul quoi. Pape ñu ñu fàttali ne plan kër bi ñu doon wan si plan bi maquette bi architecturement moom la ñu représenté instant bii ni non mais c'est ce que je suis de la continuité de la présentation. xoolal lii mooy fii gazon yi di nekk lii da ngeen see def ba defar lii mooy garage bi lii mooy porte euh, ana elle est où la porte d'entrée déjà. Mm. la porte d'entrée de la maison est là donc ceux-là c'est des pièces de la maison fii c'est la chambre des enfants. waaw. mais kay xool néegu mag ñi. ku ndaw asmaalik nga xoolal ma néegu mag ñi booy yi dañu imprimer lal ba def ci ay ngeganaay ba ba sànni ca mbàjj seen armoire ak seen coiffeuse ay espace perso la yu extraordinaire mais tu te dis mais booy yéen a defar li ngeen équipe bu vingt ngeen en tout cas macha allah yàlla bu leen ca ce sont des jeunes te ba léegi ay U15 ngay dégg de ay. 10 12 11. 10 12 11 Papa Omar bàyyil di toroxal nit ñi waay bàyyil ah. <laughs> léegi euh, ku si ni la expliqué lu nekk. ana ñu bàyyi ak di ko gis. <laughs> non non barke rasulilah du ma ko laal. parce que lii du ma ko laal. du ma ko laal waaye ma ne. lii du ma laal kaay nii d'abord kaay nii d'abord waaye moromu lan ma fi indil mu ñëw di ma présenter mbooloo mi maa ngi wax ne toute tentative de menace. ça va Rokhaya. ça va bien. tu comment. Rokhaya Sall. Sall. Sall Ngari Lam Toure Bourguédé. tu as de ans. huit ans. Roqaye yow yaa ñëw di ñu expliquer kër gi li nekk ci biir. waaw. yee yow da ngaa bokk ci li defar kër gi. waaw. Roqaye yow da nga doon seesaan rek duñ lay yónni ay demal indi mbuus affaire yooyu wala defar da ngaa defar dara. defar naa dara kañ. loo defar. kër gi. Eh, Roqaya. waa <laughs> kay bien bien je vais t'aider. Papa, suñu déplacer fo loquet bi euh, le truc en bois là. Ouais, comme ça ça pourra ça pourra au moins avoir de l'espace. c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave. non dañuy demaale après si côté imprimante 3D bi ça pourra avoir de l'espace. c'est pas grave ok. Rokhaya je vais t'aider à monter. un deux trois. voilà am prends ton micro maintenant. est-ce que tu vas nous expliquer. qu'est-ce que tu vas nous expliquer ici. fii boo ñëwee fii nii mooy porte d'entrée bi. waaw boo duggee si porte d'entrée bi garage bi ngay njëkk a jot. boo génnee si garage bi. waaw. local technique bi. local technique bi fii lu kër gi yëpp si lay connecté. local technique bi. foofu la fii lu kër gi yëpp di. connecté wu suñu kër da amul local technique yeggalil. après nag boo génnee si local technique bi nga jaar si jardin bi. ba dugg ci biir kër gi. boo tuggee ci biir kër gi cuisine bi ngay njëkk a jot boo génnee ci cuisine bi nga jot salon bi mhm. boo génnee ci salon bi après nga jot nga jot yi boo génnee ci buanderie ah, fi ñuy fóotee oh ak fii machine à laver di nekk mhm. après fii ni mooy toilette toilette invité boo génnee ci toilette yi après di nga jot chambre enfant après boo génnee chambre enfant léegi si toilette toilette bi si. toilette extérieure la pour chambre toilette, enfant. waaw toilette extérieure pour chambre enfant si patio bi lañ ko def après nag fii nii porte vitre la après boo génnee si porte vitre bi après nga jot chambre parent après chambre parent dafa am toilette parce que ñoom ay mag lañ après nag fii yëpp jardin bi la fii serre la. lii kaas bu poteur yi defar la. lii daal la. lampe. lampe. lampe pour mu leeral. waaw mais j'ai vu des fils des raccordements. kii moo koy expliqué. kii moo koy keneen kuy expliqué chambre technique bi. waaw yow lan nga defar fii. man. ah. yii yëpp ñoo ko bokk defar. mais bëggoon naa xam yow. fan nga si indee sa touche personnelle yow yaa defar gazon yi waaw ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko tracé ndoo yéen ñëpp yéen ko tracé ndoo mu nekk travail d'équipe waaw félicitations ma chérie c'est vraiment formidable merci beaucoup je t'aide à descendre à temps Rokhaya Rokhaya Rokhaya formidable yow ak Rokhaya ne sutante wu leen toxawal <laughs> mën ngaa yëgal sa bopp mënoo yéegal sa bopp. waaw papa. mën ngaa yéegal sa bopp mu ne noonu. comment vas-tu? ça va. prends le micro. comment tu t'appelles? El Hadji Momar Gueye. El Hadji Momar Gueye. et c'est toi qui vas nous expliquer la chambre technique. Mm -hmm. qu'est-ce qu'elle a cette chambre technique? moi dama leen expliquer électricité bi. électricité bi dugg ci kër gi. Mhm. parce que j'ai vu des lampes partout est-ce que ça s'allume ces lampes? Mm -hmm. ah sérieux prouve-le alors on t'écoute. comme ni ngeen ko gisee nii rek. baal ma non ngeen ko gisee nii nit mënul defar kër sans électricité. si lañ prévoiroon si lañ prévoiroon jël espace bu nekk ñu dugal si ay ampoule biñ ko defee ba pare dañ jël ñaari fil yu tudd mâle ak femelle biñ ñu jëlee ñaari fil dañ ko branché si ampoule bi. biñ ko branché si ampoule bi si la fëlee si local technique bi. bu bu fëlee si local technique bi nag dañ daan jël benn di yëkk di teg. biñ daan jël beneen après dañ xam ne dafa yeex si lañ si lañ ko roulee ñu teg ko si interrupteur nga xam ne da nga koy wàccee rek mu tàkk. laa ilaha illallah booy la <laughs> ah? la wàcce. man maa ngi doon déplacé lii ay yëkkati waatal yëkkati yëkkati. laa ilaha illallah booy defal ma gros plan waxuma ci interrupteur bi de mais gros plan ci interrupteur bi ak kër gi gis nga kër gi ni mu ne këru sa lëndëm nii Alaaji Malick yëkkatil ma lii s'il te plaît yëkkatil ma damaa bëgg nit ñi gis li ma gis damaa. booy bi daf maa bett billaay booy daf maa bett dama choqué <laughs> nga ni kër gi da ngeen a créé fii lii. pour mu fële su la kaa bi. waaw mais dañ ko roulé ñu branché ko si interrupteur bi nga xam ne def nii rek mu tàkk. kër ga tàkk na. léegi lii mooy interrupteur lii boo gisee ne bu ñu ko wàccee rek làmp yi ci biir kër gi yépp dafay tàkk. parce que techniquement da ngeen ko relier ba mu nekk une maison mu nekk benn bouton d'allumage. Ah. wàcceel interrupteur bi ma xool. macha allah. lépp. lii moo koy chargé panneau solaire ak éolienne. mais suñ ko. ah panneau solaire ah, ak éolienne. énergie éolienne mooy énergie bii di tourner. waaw. par le vent. Mm-hmm. moom mooy chargé seen batterie bi. ah ah panneau solaire. ak panneau solaire. Mm-hmm. yéen yéen a créé loolu booy. mais suñ ko saatee pare dañuy jël batterie bi ñu dugg ko si local technique bi pour mu mën a alimenter kër gi. macha allah y a trop d'informations <laughs> en macha allah macha allah panneau solaire ak énergie bii di énergie éolienne moom moo war a tourner pour mu charger batterie bi batterie bi jox courant kër gi yéen a créé loolu booy. l'importance d'étudier en wolof <laughs> non docteur Sall bàyyi man nee na ma j'ai gardé le meilleur pour la fin ñun koy fin ba rek la ñuy laajtee ndax nañ fa àgg rek. <laughs> non dañuy fin barki téere maam yàlla lii bu yaboo Alaaji Njaay dàq ma sax. <laughs> ah. waaye ñii dinaa xool li ñu defar xale yi. kon baax na pare que nee na ma on garde on a gardé le meilleur pour la fin léegi ku topp si présentation bi wala pare ko. léegi Amet Ameto Amet Kaay Ameto merci beaucoup. eh yow kon mënoon ngaa yëgal sa bopp yaa ma bëggoon jàpp di ma fob Ndiaye. comment vas-tu Ameto ça va tu peux prendre le micro ou tu veux que je te telle le micro. ok je te telle le micro parce que tu vas nous présenter des choses ça va. c'est de l'autre côté tu vas ah ouais. Ameto c'est quoi ça. Hum... Euh, c'est un... aujourd'hui je j'ai présenté le domaine de l'électricité. expliqué ma ko ci wolof samay nasaraan neexul. léegi nag tey nag dama ne ni woon domaine électricité léegi nag électricité dafa am ñaari façon circuit. Mhm. circuit en série ak circuit parallèle. léegi nag circuit en série boo koy def da soxla batterie ñaari lampe interrupteur ak ay fil léegi nag circuit en série. wax dara laa ci xamul. maanaam da nga bëgg a jël batterie bi mu taal lampe. waaw léegi nag dafa am na ñaari façon. yoo xam ne ni benn bi daa adapté si kër beneen bi adapté wu si kër nag bi adapté si kër moom leen jël kii ko si kii bi ba mu nekk kii ba muy taal lampa yi daal loolu noonu nag mooy circuit parallèle léegi nag dama leen koy présenté léegi. xam naa techniciens yi ñu ngi kontaan ci yow waaye man li ñuy wax barki Rasulullah comme ay chinois si man expliquer ñu lan nga bëgg a expliquer. léegi la bëgg expliquer daal nan la ñuy def ba ñaari lampa yi tàkkandoo tolloo puissance daal. dama la bëgg a wan loolu. bisimilah wan ma ko ma xool. dañoo nga jël fil bi accroché ko si ñaari extrémité noo bi accroché de. booy non bu ñuy def seconde lañ ñu koy jàngal wala première. waaw RLC terminal première je crois. ñun ñu bàyyi classe gor yi moom duñu ko jàngal moom. te ab association la quoi li ma jaaxal du ab école de ab association la rek. comme damay ragal du du du du fii jàppul dara. non jàpp na. waaw ah. bu xasee ba bu ko laalee sax jàpp na. Ah. am xam-xam yi dañ lay mën a doser. léegi lii mooy. lii mooy circuit en série laa leen njëkk a présenté boobu noonu adapté wul si kër looloo tax kiiwuñu ko si kër yi. parce que circuit en série maanaam. mooy daal du lu ñu mën a def ci kër. voilà mooy exemple daal lampe bi day tàkk bu baax exemple fii kër la. Mhm. léegi nag lampe lampe bi salle bi bu baax boo demee léegi si biir chambre mu nekk en veilleuse loolu noonu nag mooy circuit en série mais nag adapté bi ñu ko defoon exemple mooy comme ni ma la wax léegi salon bi day tàkk bu baax léegi nga dem sa biir nekk kii bi di clignoter di nekk mel ni. du am du am. Euh, équilibre si. Euh, voilà du équilibré quoi. la distribution. bii day ëpp doole beneen bi. léegi jël nga ñaari batterie yi branché ci ay fil branché ko ci lamp yi branché ko ci lamp bi. waaw ah. léegi yaa ngi koy branché ci. interrupteur bi. waaye yéen appareil yi fu ngeen koy jëndee. ah lii ngeen di def nii. yu zone yi bu demee Kénkaayeree rek nga am léegi yaa ngi gis voilà yaa ngi gis bii day tàkk yaa ngi gis bii nag day nekk en veilleuse. waaw bii de tàkk na ba mu leer bii tàkk tuuti. waaw day nekk en veilleuse. léegi nag lii mooy circuit en série. circuit dina adapté wul si kër mooy comme li ma la wax léegi bu salon bi day tàgg bu baax nga dem sa néeg kili clignoté bii day kii léegi nag soo ko kii wee mu def nii léegi nag dama leen présente circuit parallèle circuit parallèle boobu nag moom leen kii pour kër gi pour pour lépp daal. mun toll maa ngi comprendre loolu la Thomas Edison. léegi defe naa Thomas Edison la. Mm-hmm. c'est un noir qui a découvert ça l'énergie parallèle. Mm-hmm. C'est Thomas Edison qui a breveté, mais c'est un noir en réalité qui a, qui a tout fait. Énergie parallèle maanaam fi ngay branché bee foofu ngay branché bii. adduna de nii la ko yàlla bëndee il faut nga am plus ak moyen pour nga am courant. barke yàlla waaye plus ak plus du joxe courant. ñu xool un deux lii mooy énergie. ah lii mooy circuit en parallèle. lii mooy circuit parallèle. waaw léegi moom lañ utiliser pour def ko ci kër yi parce que en <coughs> boo ko taal bu soo soo basee ci interrupteur yëpp ñooy tolloo puissance. macha allah. macha allah et puis tu parviens à faire ça avec une batterie. Ah. que tout le monde peut faire tout le monde peut avoir mais man maa ko yàq de man maa xool damay teg m rek. laay dégg naa sax yaa ngi wax naan ndax jàpp na jàppul. Papa Omar man est-ce que du ma mujj nekk technicien. ok virgule. Amadou ko topp Mohamed Mohamed Faye. Mohamed Mohamed bisimilah. merci a ñu tàccu ko. on a plein de Mohamed comment vas-tu? Mohamed Faye nga sant. tu nous présentes quoi toi? micro jardinage. Mhm. viens alors. Pape Sidi. balaa Mouhamed di présenter micro jardinage. waaw Koumba Kane dafa wax lu am solo. Uh-huh. nee étudier avec la langue française. qui uh-huh. n'est pas la nôtre. a uh-huh. beaucoup de ralenti sur nos capacités d'apprentissage. waaw utiliser la langue langue wolof. la langue le wolof qui est parlé partout au Sénégal devait e-, être utilisé dans les écoles pour les apprentissages techniques. c'est très bien ce qu'elle a dit. waaw wolof ngeen di jàngee. dañ leen di expliquer ci wolof ba ngeen comprendre. ok léegi lii lan la microjardinage ay xottu gerte laa gis fii lii du naana. lii mhm. euh, comme ni ngeen ko gisee kër gee tamit dafa am ay plant yu plantes ah, familiales ak microjardinage microjardinage dafa nekk lenn loo xamante ne pour kii la euh, pour élever ay plantes la benn espace bu ndaw la pour élever ay plantes lii nag pour confectionner lii nag bac de culture la tudd pour kii nag. Euh, matériels yi nag ñu ngi koy jaayee quincaillerie yenn matériels yi mu di marteau clou 4 centimètres clou 6 centimètres bant. Euh, euh, bâche kontu nga ñuy wax fu ñu koy jaayee yow. <laughs> bâche quincaillerie lañ koy jaayee xam nañ waaw. toile waaw. aussi arrache arrache vibre quin drain. Euh, pour confectionner bac de culture bi da ngay jël bant cadre yi nga enroulé ko si kii mu nekk benn rek bon mu nekk rectangle. Mhm. léegi soo ko soo ko soo ko ba pare nga jël traversé mu nekk au nombre de neuf mais pour mesurer ko il faut nga jël sa ñaar de sa deux doigts yi nga mesurer ko loolu trois centimètres lay doon léegi soo ko mesuré ba pare après nga daj soo ko dajee nga mës nga mën a accéder au pie yi pied yi nag après na ngay jël kii nii bant cadre yi bant mhm. waaw nga léegi loolu mooy defar nga kees gi ba pare. léegi nan gaaw defar nan kees gi ba pare léegi lan lii naanaa la no waaw lii tamaate la. waaw ah xorompole. xorompole booy mosuma gis xorompole sama àdduna <laughs> garabu xorompole lii du garabu tamaate booy lii xorompole la. xeeñagul dara. d'accord léegi lii la la lii moom it naanaa faas la. waaw <clears throat> ah booy mënoon nga jam sax ngun-ngun wala citronnelle lii la la. citronnelle <laughs> maa nekk nii léegi mooy ngun-ngun. ah mooy naanaa pa naanaa ordinaire bi bii mooy basilic bi. ok léegi lii lii laaj. lii waaw laaj la. asmaa li gis nga laaj léegi lii ñaata lii nan boo ko defee boo amee kees gi ba pare da ngay dem ut xottu gerte ji ko si. Ah, lii substrat la parce que lii mooy dëgëral plante bi lii da ngay jël 40 pour cent baldari mu di xollitu xollitu xollitu kepp ak 60 pour cent xollitu gerte nga melange ko nga lessivé ko mais am na ñaari semis semis direct ak semis indirect mais pour repliquage bi fekkee yaa ngi gis biir racine yi dafa ngand ngay jël sa 2 centimètres 2 centimètres au plus nga jàmb ko nga dugal mais fekkee comme bii nii racine dafa ndaw mën nga jël 2 centimètres kese tout court après nga jàmb nga dugal. man de maa ngi jàng agronomie man. merci beaucoup ñu tàcc ko. Pape Pape sur les commentaires sur le Facebook live El Hadj Matar Fall nee na vraiment c'est trop magnifique. Dans un pays normal qui aspire le développement, ces enfants devraient être appuyés en formation et ils pourront aider le pays dans plusieurs domaines. Amadou Tidiane Diallo nee na c'est Dame Diop le ministre qui devait sponsoriser l'émission parce que yéen a ngi liggéey lu am solo si dëkk bi. Dame Diop moom bu ma ko tuddal man. <coughs> léegi ñu dem si ki nga xam ne mooy deuxième bi. bis toog ma naan yéen ñaar ngeen. yow toogal ni lii laa la salaamaaleykum. comment tu t'appelles Lamine Gueye yow peinture ak chimie Medoune Gueye voilà avenue Lamine Gueye Medoune Gueye moo ciy dox léegi nañu xool yéen lan ngeen ñu indil tey damu ñëw pour présenter Kombe Kombe à Colombe Colombe waaw ak décoration à partir d'argile d'accord loolu ngeen ñu présenté nii lii la la. comme ni nga ko xamee am na yenn kër yoo xam te ne dañuy am ay ay teen pour jardin ay pour de fleur pour décorer ay salon yooyu noonu waaye ay ànd pour salon yi ànd nekki et tey dama ñëw fii pour wan ne ñuy defaree ay kii pot crayon ay kii nii puis waaye ay kii case et yooyu yëpp moom laa dem ote nii pour ñëw fii wan nañ ko. wan ñu ñu xool booy. booy ànd ni mu yombee jënd ay 500 ngay dem jënd ànd yow nga ne dangay defar ànd ci kër gi waaw defaral ñu ko. yooyu soo bëggee defar koo bi da jël ban. baal ma jox la. da ngay ñëkk jël ban bi. waaw. def si ndox bu bëri. waaw. nga boole ko. ànd bi moom maam Boussa lañ koy amee. <laughs> pendant ce temps sa butéelu saafara yi xanaa cumukaay Modou loolu. yii du man de. ah keneen la. Mm. kooku muy ñëw. léegi yaa ngi tooyal ban bi. waaw boo ko tooyalee ba pare. après dañ nekk kol. day nekk kol. Mm. yooyu mooy bii gën a tooy. yooyu asi yi mooy bii nga xam ne dafa woo. gën a dëgër waaw. d' accord ndeysaan yor nga lu garaaw piisu tigo tigo laa gëj a dégg. yéen booy ay xale ngeen di nuru nuru nii nii rek mais du ngeen xale de ay mag ngeen. yooyu puñ. puñ di wax ay xale ngeen pour ma rus. yooyu puñ la dama ñu ko def Korombé. fu nga ñu ko jël à jus bi. waaw. des si koor boo yéen a ngi may jommal de. soo defee à wu bu pare yéen fu yooyu ko ba mu baax en tout cas les commentaires Facebook vraiment c'est encourageant c'est trop encourageant <coughs> merci les gars à commenter sur le Facebook léegi defar nañ benn rondel nii lii garabu yoo la léegi eh, soo paree nga jëlaat kaw bi waaw teg soo paree nga jëlaat beneen partie bi léegi yow looy defar ni boîte à bisou waaye boîte à pot crayon. boîte à bisou. soo nee mën nga see def mën nga ko see def te soo paree nga jëlaat beneen bi. très bien. kolewaat. kole ko ba mu kole dëgër këj. nii la de réew mi de am na ay xale yu man wallaay. waaw bokk na bokk na waa tous tasar gang nun maa ngi leen di nuyu sax ñoom danoo danoo gëj a am bës fan yi Pape Ahmad dans sur le commentaire Facebook Ahmada Nedim Sarr nee na le chinois est capable de réaliser une chose facilement parce qu'il parle chinois l'américain est performant parce dans un domaine parce qu'il parle anglais L'allemand est injustement performant parce qu'il parle l'allemand. Mais le Sénégalais est souvent confronté à un blocus car il ne comprend pas la langue française vocabulaire am dafa metti te Cheikh Anta Diop daan na wax ne jàng si li nga nàmp sa àdduna dina yomb. yow xoola booy bi li mu defar. xoola booy bi bool bi mu defar ba defar ko ay décor. lay lay la laa dañu coppati doy na doy na fii wala da nga koy dolliwaat. yi nga siy teg ñaar yi si des nii. moom ngay jël teg ko si kaw. that's amazing. kay laa lay wax nii. ah docteur yaa ngi liggéey lu am solo dinaa ñëw association dong nga yor xaw ma ku lay dimbali nag wante war nañ laa jàppale yow. ndeysaan. clin d'œil à Mbara Mbara fa la jaar sunu copain. Mbarak Mbarak. ndeysaan nee na ma foofu la jaar je suis très content. Aujourd'hui, notre plus grand technicien de son, c'est lui qui nous procure le son pour que les téléspectateurs du Sénégal nous entendent très bien. Il vient de votre école. Et ça, c'est une grande fierté pour nous d'avoir un de vos produits sur le plateau et qui travaille pour tous les Sénégalais. léegi Baka Bijou la. Oh. Baka Bijou oh laa lay tegal nii. Ah, la case très rapidement. en attendant les événements c'est dafa am yeneen invention yu des en attendant keneen na ñëw comme ça ñu gagner du temps. waaw ah on en est à combien minutes combien de minutes. waaw kii marché bi na ah des na na may 10 minutes la ñu waa 2S di may tey rek. 10 minutes en attendant mu defaral ñu loolu yow filmel ma loolu en attendant Cheikh Laye di ma filmel fii maana di ko shooter comme ça on gagne du temps. salut ma chérie. ça va tu vas bien. tu peux prendre le micro parce que je suis un peu loin de toi. yow looy def. peinture. peinture waaye lan ngeen dul jàng foofu seen école bi hein. daaba daaba nawal toxee ni daaba jël ko. ayca ñu dem xaaral ma noppi ci sax comme waxuñ ma dara. allez on maa ngi tudd Amina. maa ngi tudd Amin Ndiaye. am 12 ans di def cinquième. 12 ma ma ma jooy. Ami Ndiaye 12 ans di def cinquième. Hmm? la am. lu yuuxuma mënu ko. <laughs> Rokhaya Mbodj 15 man la ca Medina. maman na fi Geesman ca Medina. et pendant ce temps la case prend forme. ay waay da ngay xool booy baa ngay defar case ba. booy bi moom indi woon piste alizé bi. ah. piste alizé bi booy bi <laughs> la case est terminée. Pape Kaasu génn na ba ba mu kereel ko buntam. en un temps defal jub nii. ba waaw ak jub ak buntu foo duggee. tournel ni kaas bi. ndeysaan defaral na ko jub. tourné waatal tourné waatal voilà la case est ñu tàcc ko borom case yi merci beaucoup. félicitations les félicitations autres. léegi nga ne lan ngay dessiner. peinture euh, dessiner ma damay peinture. maanaam peinture mooy. damay ñëw pour expliquer ni ñuy mélange ñeent façon couleur moo am ak ni ñuy mélanger couleurs yi. na ñëw na ñëw. dafa am ñetti couleurs. nee nañ dafa am ñetti couleur primaire à partir de couleur yooyu mën nga si créer yenn couleur secondaire wala sax tertiaire Papa Mar kii li muy wax am na solo torop mu ne mu mu ne dafa am ñetti couleur primaire waaw à part Gainsman nga yow à partir de ces couleurs mën nga si créer créer yeneen couleur pri euh, secondaire wala tertiaire secondaire acco ñu dem ñu xool balaa loolu dangay tooyal pinceau bi parce que day wow pinceau ba tooyal nga ko noonu léegi boo bëggee am gris dangay mélanger noir bi ak blanc bi boo bëggee am gris da ngay mélanger noir ak blanc. boo bëggee am lan gris. <laughs> gris kaña. Ah! maa ngi xool maa ngi taxaw fii di vérifier. loolu lu dégg lu garaaw nga kon. déedéet waaye li kii du def gris waay kii kii kii deful gris waay kii waxuma la gris waay bordeaux na ko sax. Youssouf Diém nee na. dañoo war a inauguré booy yi moo gën ñu inauguré leneen li. <laughs> ah Youssouf Dieng bàyyil bàyyil bàyyil picc yi. Pape Sidi gars yi nee nañ la fal ministre de la jeunesse dans les commentaires. <laughs> macha allah Pape Sidi et ton équipe le rôle de la télé c'est de nous éveiller mais surtout de nous montrer ce que nous pouvons faire de nous-mêmes en apprenant dans nos langues maternelles c'est impératif si on veut nous voulons émerger félicitations surtout. maa ngi ñaanaale par ailleurs euh, mboolem ñi seq programme 2STV li ko dalee ci Grégoire li ko dalee ci Badiane Mané ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ci programme bi yëpp di leen ñaan beneen 10 minutes supplémentaires ndax tey dañoo am ay xale te xale kenn du tas yaakaaram xale yi dañoo ñëw ba ci télé bi tey wan ñoo wan ay invention yu extraordinaire je pense que c'est très utile pour les Sénégalais dañoo dafa dafa dafa gril jël peinture bu noir boole ko ak peinture bu weex mu jox ko peinture bu gris waaw kon bu ngeen amatee nuwaar ak blanc bëgg gris garaawut. léegi bëggee am vert. vert waaw nga jël ak bleu bi. déedéet loolu loolu du dëgg moom. jaune ak bleu day joxe vert. mu ngay vert. laa ilaaha illallah. macha allah kon yow parti démocratique sénégalais li mu fi nekk yëpp PS la woon. <laughs> Ah. ah vert kat mooy zone bu la. waaw. ay Fall nopp dalooti na tey. Mounir Mister Mo mindset <coughs> nee na aucune nation ne s'est réellement développée sans utiliser sa langue d'origine <laughs> l'indépendance linguistique est obligatoire. ñeneen moo ñu wax ci xale yi leen di jommal nii nan ma waxal ci xale yi kan moo leen di jommal. kon baax na nan la wax booy kan moo leen si jommal. kii de jël na peinture bu jaune ak peinture bu bleu mu créé ko peinture bu wert boo bëggee am mauve nga jël rouge bi ak bleu bi. boo bëggee am. mauve mooy violet. Pape Sidi booy ñoom ñëpp a grave c'est un travail d'équipe. et nous demandons ministre. d'acheter l'émission car il faudra plus de temps. waaw yow kii defar na moofu alaaji yow maa ngi jom fii. yow la <laughs> maa ngi dee. moof la la defaral foofu. kii daal ay couleuram lay for. Dadis Dadis nee na borom circuit en série parallèle yi ak boy jardinier bi ils sont trop forts. non <laughs> oh, mais dama yéemu. booy jardinier bi indi fi ay ay ay ay ay ay laaj yu ñor. ah laaj la ma indil booy bi. <laughs> boo bëggee am rose boo bëggee am rose. kii rouge. rose blanc ak rouge ngay def. yow moom danga may wax. nii rek pour la blanc ak rouge ma joxe rose. 11454. ma ma mbaxana Père Noël baa ngay génn ay waay ci xale yi ñu may jommal waay Fall. ah mais Pape Mamadou Diop mi ngi apprécié de. ma Mouhamed waxoon naa ko xale yi ñoo mu naan ma peintre la. Euh, man daw Ngom nee na Pape Sidi da nga war a am passeport diplomatique. <laughs> xool maa ngi ñaan wii saa ñeenti weer ñu bañ <laughs> fu dem ñu dama duge fi. <laughs> way boo bëggee am orange. boo bëggee am orange. loolu moom da ngay dem cité kër góor gi rek. Pape Sidi Fall lom de l'année good morning émission de la télé de seet loolu Pape nee nañ boole Pape Omar. waaw noom kay Pape Sidi lañ wax. wuy ma Pape Omar nan def te ngay FC de l'année <laughs> bëgguma benn problème damay continuer di alaaji. <laughs> kii nee na boo bëggee am orange ngay jël rouge ak jaune le rouge à ah, ce qui paraît c'est magique ah ça va avec presque tout pour développer le Sénégal El Pate Gueye nee na nous devons mettre en œuvre ces pratiques et changer le système éducatif sénégalais bravo à SITS mhm. docteur Sarr ñu ngi lay léegi bu dee da bëgg def tableau bu mel nii. Mhm. il faut nga am tableau pinceau bi crayon. wan ko wan ko tableau bi. ñi ay sirène lañ wala xale yu jigéen yu sol ay robe camisole. waaw <laughs> ay xale jigéen la. très bien. ñu tàcc léegi law bi ni nii. CSD. maanaam. CSD mooy. <laughs> CESD mooy la mooy turu turu turu association. ah léegi pour am gris. Mhm. weex ngay boole ak. noir pour am weer bëla ngay boole ak soon. Mhm. pour am weer bëla ak soon ngay boole pour am wi violet mooy mauve. Mhm. da ngay boole rouge ak bëla. sérieux pour am rose da boole rouge ak weex pour am orange da ngay boole rouge ak son mu jox la couleur orange comme ça elle a été formée. merci beaucoup ma chère taxawal foofu Pape Sidi ñu jëlaat ñaar ñooñu taxawal taxawal foofu. aca dem merci beaucoup ñu tàccu soxna soosu di dem ñu jëlaat yooyu di yéeg. ça va vous allez bien les filles. ça va vous avez la forme. toi tu nous présentes. Moi, je m'appelle Marème Gueye. Gueye Nioro. je fais la classe de terminale. xanaa seen école bi ku santul Gueye du fa jànge <laughs> bëri na Gueye ah. waaw bëri na Gueye de. <laughs> je fais la classe de terminale. waaw et j'ai 17 ans. Euh, aujourd'hui nous sommes là pour présenter comme ni ngeen ko gisee rek. suñu lan nga wax terminale 17 ans. bon man euh, émission bi bu ngeen paree ngeen fekk ma si buntu bi ah. <laughs> man ñii woy gàcce lañ may teg yow. terminale 17 ans macha allah. macha allah. comme ni ngeen ko gisee rek suñu kër gi. soo leen seetloo toit bi euh, tuiles yi si nekk dañ ko imprimer fenêtre yi meuble yi buntu yi et léegi nag pour loolu ñoo ngi leen di présenté fii suñu machine bi mooy suñu imprimante 3D bi léegi nag. Euh, maanaam kër gee ñu waroon ñu. la fa nekk yëpp yéen a ko imprimer maanaam. eh man du ma <laughs> maanaam imprimer mooy maanaam yéen a ko créé daal. ñoo ko créé waaw. ay ñu mënoo sant mu ne wele <laughs> waaw man téemaa dellu daral di jaay sequk tiir ak yow ak ak ak ganaaru ndere wala xose léegi imprimer ñu dara ñu xool. <clears throat> léegi balaa ñoo commencé imprimer euh, imprimante doo ñëw rek taal machine bi mu commencé di la defaral li nga bëgg non non pour loolu dañuy départir travail bi en deux groupes. Mhm. léegi première partie bi foofu la ñu ordinateur bi di servir. ordinateur bi léegi ordinateur bi lan nga siy def il la micro bi. comme ni nga ko gisee nii pour defar suñu objet dañoo soxla ñaari logiciel léegi premier logiciel bi moo ñuy permettre ñu modéliser objet bi nga xam ne maanaam ñu dessiner ba nga xam ne ñun am nañ objectif fixe ba ñu ne ñun fii chaise xam nga fii chaise dañ modéliser. ba ñu ne ñun fii chaise dañ bëgg a defar. waaw comprendre nga. léegi suñ ko modéliser ba pare foofu la pre deuxième logiciel bi di entrer léegi su ñëwee ñu yóbbu ko léegi logiciel bi moo ñuy permettre ñu transformer objet bi en benn langage boo xam ne langage boobu rek la machine bi mën a déglu langage boobu moo ngi tudd langage J-code léegi pour am langage J-code boobu foofu la ñu logiciel bii di permettre dañuy maanaam dañuy daggte objet bi ba nga ba mu xam ne ne suñ ko dugalee ci machine bi machine bi dina mën a répondre instruction yooyu léegi pour mu répondre instruction yooyu dañuy soxla carte mémoire léegi carte mémoire bi suñ ko jëlee ñu jël objet bi transféré ko ci carte mémoire bi foofu la machine bi di entrer en jeu. maanaam da ngay jël ordinateur dessin ci maanaam defar ci sées bi ba noppi. jox ko euh, imprimante bi pour mu génne sées bi. yow kon def nga loolu ba pare fi mu ne nii. def naa loolu ma xool léegi bi ñu defee loolu. ba dugal ko ci carte mémoire bi. Mhm. biñ ko dugalee ci carte mémoire bi carte mémoire bi côté bii la nekkee. Mhm. biñ ko dugalee ba pare foofu la machine bi entrée en jeu léegi entrée en jeu ba pare tablette de contrôle baa ngi nii léegi tablette de contrôle bi mooy permetre ñu mën a instruction direct yi machine bi mën kaa mën kaa mën kaa jot. léegi pour loolu nag dama leen di bàyyee sama collègue Issa Dramé mu expliqué leen eh, li jublu si logiciel bi affaire yooyu. yow taxawal nii yow. Maodo Malick Diop. gars yi j'ai les larmes aux yeux. il faut insérer la langue wolof dans les écoles surtout dans le domaine technique. ces vidéos m'ont permis de comprendre rapidement le montage en série et en parallèle que j'ai appris il y a dix ans et que j'arrive que j'avais pas compris. wala eh xale bi de deux minutes la ñu expliqué ñu comprendre ñu. wallaay ñu jàpp ñu jàll ci leneen yow eh, nga ni. Issa Dramé. waaw Issa laa tudd. am 18 ans di terminal waxal sa programme que da ngeen bàyyi seen at yi ngeen di wax ci télé bi da aase <laughs> waaw comme ni ko mu waxee rek mhm. ñun man may def lu dul eggali li mu commencé woon comme li mu wax ci carte mémoire bi bu ñu xësee ba dugal carte mémoire bi après écran bi fii nii foofu la ñuy defee lépp mais léegi pour loolu bu ñu enregistre li ñu enregistré ci logiciel bi li mu enregistré 16 bi la enregistré fi mu ne nii day bi mu dugalee carte mémoire bi après affaire bi day vase bi day affiché fii nii. Mhm. léegi après dañuy lancé dañuy lancé kii bi. imprimante da ngeen lancé pour génnee li ngeen li ngeen lancé. lan ngeen lancé 16 wala vase. ñun instant bi nii vase dañ dugal foofu. vase mooy maanaam yi def fërër. waaw bu mag wala bu yem rek bu ndaw. bu yem rek bu ndaw comme ça mu bañ jël temps. waaw parce que à ce qui paraît ça prend un peu de temps ah. on on lance lance de de dañuy defar vase en direct à télé comme ça. vase ah. vase. la ñuy defar en direct. waxuma potu waas de. vase vase. léegi en mun nañ ñëw fii nii wala. pour loolu dañuy dugg fii nii. Mhm. prépare print from TF. waaw. boo duggee foofu da ngay rechercher vase moo nekk nii vase point J code. loolu mooy code bi après. affaire bi nag du jël temps bu bëri mais foog ñu xaar fii nii mu def 60 degré fi nekk deux cent cent 280 245 degré pour affaire bi mën a réchauffer moteur bi foog mu tàngal ko. pour loolu kon day jël fil lay jël. waa fil boobu moo nekk nii mooy filament. filament bi lay jël mu defar ci vase. filament bi balaa mu kaa mën defar balaa mu kaa war mën def vase day dugg fii nii ba pare fii lay jaar si raakol yi. moo nekk nii raakool bi xam nga instant bi mënuñu laal lii day tàng. Hmm. moo tax ñu indil leen benn. benn benn benn benn mbir pour wan ñu ko. waaw pour waaw. fii lay bi foofu lay dugg. fii lay jaar gis nañ ko ah moo nekk nii ah. après mu jaar fii. lii moo koy tàngal. pour mu mën a pour mu mën a see génnee ci buse bi. lii mooy buse. lu sew li loolu mooy dessin bi waaw lii moo koy dessiné yéen ñaar taxaw leen fii ba li ngeen di defar pare maa ngi ñëwaat ci yéen xaar ma dem si sama ñaari xarit yéen yow kaa defal chimie bi chimie waaw ñii nag da ngeen eh, nag eh, eh, y a trop ah, d'émotion dans mon cœur comme ça kii asalaamaaleykum vous allez bien les filles vous avez la forme vous vous êtes les petits génies de la maison ay waay ji le xale yi yow noo tudd maa ngi tudd Anta Dramé Anta Dramé laa tudd <laughs> bu fi wax sa at. am présent ay waay jile Anta bàyyi <laughs> di def quatrième. quatrième ngay def. très bien yow. man maa ngi tudd Aïcha Deme am 14 di def quatrième. bu leen leen gëm dégg waxuñ seen at vrai. alors vous allez nous présenter quoi les filles. Euh, comme tey ñun kër yi yu si bëri ñoo ngi utiliser chimie mais duñ si rendre compte lu bëri. booy togg yaa ngi def chimie booy defar jus aussi moo tax ñu bëgg leen présenter benn expérience bu tudd colonne de densité. maanaam loolu la la. colonne de densité benn ex expéri moom laa leen di wan. colonne de densité lu mu doon waa di wan ñu. lii laa la la ma nekk ci biir kaas bi. sirop. sirop. moo de menthe wala siro sirop de bissap. ah. sirop de bissap. Mhm. leneen lii ngay def nii ci biir la la. savon en liquide. savon en liquide ci sirop de bissap. waaye yàq gi nga jugtee loo ko ay waay xale bi bàyyil yàq. sirop de bissap savon en liquide. ma defee savon en liquide bi ba pare damay def eau oh, ndox bu ko naan de dangay dee. kii est-ce que du duñu tëb meew bi kii def cancre bi direct bàyyi leen rek. Umar. sëñ bi. baax man damaa joom mi de. après ma def diwlin huile bi. waa eh di kii day fa waay defarul dara <laughs> moo. ay sirop bisaab ay saabu saabu. je vous rappelle ñu nekk ci commentaire yi lii du école de c'est une association qui forme ses élèves le les mercredis soir et les samedis soir. man kay kii li muy defar laa bëgg a xam. ay diwli nag ay ndox ak. su ma men. kii kay waxuma la bomb waaye mu ngi bëgg a defar Hiroshima. booy yéen lii du du naaw wala du kii nii. non du naaw de dafa nang rek Pape. saa mi ngi mixé rek te ñun xamuñu lan lay mixé. Ah? la. c'est une association. Ah, qui forme des jeunes. ses élèves de huit heures. maa de huit heures sax les mercredis et les kii man dama joom mi man de kii maa ngi koy yéem yéem goo xam ne da koy da koy teg ci ci catu kaas bi la koy teg pour mu rogalaat bugg koo jam daal ci jam waaw waaw on asculaire on asculaire tuur bu baax sax mais on asculaire xam nga ni lii nag wax dëgg yàlla nag yow xureja ci am lii kenn du ko defar ci kër jus ah, de bissap savon en liquide alcool ndox. alcool huile il a de l'huile d'abord. avant avant l'alcool après maintenant. boo ko defaree yëpp moom lii la lay jox. waaw. lii moo ngi tudd colonne de densité densité nag moo ko boo moom mooy doole. waaw. maanaam daal doole yi duñ benn. léegi sirop de bissap bi mooy bi nekk ci suuf moo ëpp doole savon en liquide bi. savon en liquide bi moo ëpp doole. ndox bi. diwlin gi diwlin moo ëpp doole. maanaam daal alcool bi moo gën a woyof. maanaam salon de dansité dafay wone matière bu ci nekk doole ji mu am. waaw. lii bu ko kenn naan. <laughs> s'il vous plaît dégg na ah? macha dañ ko jox Rokhaya Ndiaye mu naan ko. macha allah. <laughs> zi pour toi Rokhaya. <laughs> alors on va on va continuer très rapidement. am na beneen expérience aussi. ban la. expérience bi mooy tudd lait magique. les magiques. On va voir les magiques, c'est quoi? les magiques les magiques. ah magique. bon Bridel la dañuy bañ ñu xam ne Bridel la moo tax ñu dindi kii bi <laughs> bu ngeen ko bëggee def à la maison. ngay soxla benn bouteille meew. Hmm. ak colorant alimentaire ak savon en liquide. mais colorant bi du nekk colorant alimentaire la. waaw bëgg nga savon en liquide daal. dadis dadis commentaire euh, Pape Sidi dadis dadis nee na ñoom ñuy commenté waa axlu commentateur et que live bi àgg na ba 500 si sa page nee dañoo bëgg cotiser jënd émission bi pour ñu continuer ko ba <laughs> waa commentaire axlu commentaire nee nañ nañ nañ wax ñaata la ñoom ñoo koy ñu ñu joxe numéro. ñoom man yaa ngi ratalu garaaw xale baa ngi def fii ay affaire yu garaaw. Ah, kon xaaral ma ju. kii bi magique. fukki weer mooy drapeau Sénégal moom. ngeen lancé woon. sol na ci sol yow foo ne. Pape Omar de xool bi. Ah? naa sol kay. Alexandre Serge Gomez votre émission doit être sponsorisée par le ministère de la petite enfance et de l'éducation. kii pic brochette. vous ne faites pas la promotion de la médiocrité. ah pic brochette mais la promotion Pape. Oui, euh, Alexandre Sadgomener, votre émission doit être appuyée par les ministères de tutelle, car vous ne faites pas la promotion de la médiocrité, mais la promotion des sciences. Attends, Papa Marcarol, Papa les musiques. Un, <laughs> oh, oh, oh. je vais faire ça ce soir à la maison. Maman Joy. Eh, ouais. Maman Joy. les Magiques waaye amul Magique Land waaye am na fii si suñ télé <laughs> les Magiques. day tax couleur yi nga amul woon yëpp di nga ko amaat. oh my god oh my goodness. vous êtes formidable. autre expérience. waaw dama leen di ak Aïcha dem. dem après yow bul dem taxawal. Pape di rafet na de. trop au oh, Magique. <laughs> les Magiques. les Magiques baa nga noonu gis nga ko bi ñu koy waaj a merci Anta comme ni ko Anta waxee rek. Euh, si biir kër yi lu si ëpp dañuy pratiquer chimie mais nit ñi duñ si rendre compte. Mhm. léegi man nag dama leen di wanaat yeneen expérience. comme fusée. fusée. du naaw fusée mooy lan. Ah, dina naaw. ah waaw na naaw na naaw ah, sama yoon nekk ci na naaw. dina naaw léegi nag fusée boobu noonu pour nga defar. waaw waaw waaw li ci des bariwul li ci des bariwul dañuy def fusée bi rek ñu tàggoo. fekk imprimante bi mu ngi imprimer lële. fusée bi nag pour nga defar kam il faut nga am. Euh, il faut nga am de pellicule euh, bicarbonate eau ak vinaigre tout d'abord da njëkk a sotti bicarbonate bi. boîte de pellicule mooy boîte yi doon def pellicule yu njëkk yi. waaw boo ko amul mun ngaa ut euh, buy def. effervescent yi. Mhm. calmez-vous. après nag ma sotti tuuti ndox. ndox bi tàng. pour def attention. Ah. pour boo boo ko tëjee pour boo ko tëjee mu bañ a këpp quoi. waaw. Oh. carbonate. Uh-huh. nga def ko ci kubéeru boîte pellicule bi def ci ndox pour bañ mu tuuru. Uh-huh, uh-huh. d'accord ça c'est quoi. lii vinaigre la. vinaigre bu weex. da koy sotti ci boîte bi. Ah. léegi soo paree nga tëj ma pousse. non Aïcha dem xaaral waaw defal defal. non pas grave. dafa da explosé. tourné ko da koy tourné. il a pas filmé ça. ça fait pouf. ce soir je fais ça. yow lii kenn nga koy njëkk a def tey. sama kër laa koy def tey. et vous allez avoir des problèmes chez moi. non defaatuñu. nga naan ma da ko defaat il fallait pas il fallait filmer. décision bi nag. li ko waral mooy que. bi bicarbonate bi ak vinaigre bi boo leen jaxasee ñoom ñaar day créer ab réaction boo xam te ne comme si ñoom ñaar dañuy xeex léegi nag dañuy provoquer ab gaz bu tudd gaz carbonique léegi gaz carbonique boobu mooy génn loolu mooy créer explosion bi. très bien. léegi nag sax mu ngi xeeñ vinaigre. vinaigre blanc ak euh, bicarbonate leen beneen expérience très rapidement. Uh-huh. fu ñu imprimante bi toll. vase bi c'est en cours. expérience may ñu rek ngir yàlla may ñu rek. tey moom da ngeen da ngeen ñoo may ba ñu doyal mais xale la xale yi moo tax. expérience boobu nag pour nga defar kat il faut nga am récipient am ndox am. Anta mu ngi sëgg ndox d'accord. expérience bi bicarbonate. ndox ak récipient. Mhm. tout d'abord da ngay njëkk a sotti ndox bi. après nga jël jaa jël encre. encre. association bi mu ngi tudd. Euh, CSD. Mhm. nekk sa wakaam. Mhm. vous êtes présent sur les réseaux sur les ñu ngi si réseaux sociaux ku bind CSD. CSD Sénégal ngay bind. la EPLL CSD mais am benn e, question bu e, may posé. waaw waaw ñëw leen encre bi boo ko sottee si boo ko boolee am ndox bi ban couleur la leen di jox. bleu. barke rasulilah bu fi génnee leneen lu dul bleu. encre bu bleu kay boo ko defee ci ndox mu moom ndox mu naturel. bu fi wax leneen de ndox mu naturel bële la lay jox. waaw bële la la. léegi nag mu daal lay jox ah. ay yére yokk si ndox. ba léegi bële ba léegi bële léegi après ba sotti si ndox bi. bële baa ngay dégradé wu yow. 11 ndox mi dangeen ngeen cee def poudre bébé. barke rasul du ma ko laal Pape du ko laal. déedéet déedéet waay déedéet waay waay déedéet mais ñii ñu may jox waay xale yi yow ndox ma weexaat na. léegi nag dama amaat yeneen question encore. waaw léegi dama bëggoon xam euh, encre bi fan la jaar. fi mu nekk. daa évaporé wu pour man. déedéet ah. évaporé wul mu ngi ci suuf dañ koo nëbb. ci suuf fan. jàppul ci tànn wala ci kudd. kudd baa ngi nii. comme ni ko monsieur euh, bu dee normalement bu dee daa évaporé wul normalement waruñu ñëwaat. bark euh, nu tuddati Omar del njëkk a <laughs> <laughs> gi xaw ma boo nag beneen question encore encre bi moom fan la jaar ba ñëwaat fi mu jaar ba ñëwaat laa bëgg a xam en l'encre ay molécules yoo xam ne dañuy tëdd di nelaw. non ak di yeewu. pour man dañoo jommal daal cest à am benn instant ko def mu doon lu transposition bu def bu bu tax mu trans maanaam mu transparent. attends Pape man sama explication bu gàtt ni may xalaat. waaw l'acide qui réside dans le vinaigre. Mm-hmm. est-ce que du moom moo déclenché wala moom moo joxaat couleur. Euh, waaw bi li mu yóbbu woon. couleur double bi est-ce que c'est pas ça. c'est ça c'est peut-être. d'accord je vais expliquer ma. xaar ma bul fi naawalaat ay affaire de tàmm nga dem naawal fa dara. bete eferel ga ay nañu si def. tourbillon. bu fi weexati de mu ngay egg mu ngay weex <laughs> mu ngay weex. bon mbokk yi bon <laughs> <coughs> xale baa ngay weexal këf xale baa ngay weexal këf. c'est fini c'est fini weex na. ah man sama xaftaan yi may bëgg mu weex te ma koy carbonate. <laughs> man de instant Abdal laa bëgg a xooj nii fu ab carbonate benn daal bu ñu kukku la mais dama xam ne ne moom carbonate dina war naa mën a weex taal ndax daal bu weexee lay gën a rafet. ils sont en train de défier mes pépères les lois de la nature comme ça mais sans gêne quoi à la télé comme ça devant tous les quelqu'un. léegi nag comme ni nga ko gisee encre bi disparaîtra na encore. mais je me demande toujours encre bi fan la jaar loolu léegi laa bëgg a xam. non gars baal gars yi tontu la ko suy commentaire yi ñu xool imprimante 3 bi tëj émission bi. Grégoire waaw waaw waaw dañuy dem si imprimante bi. léegi ma dolliwaat ci encore bi nga dolliwaat ci vinaigre. voilà c'est bon da ngeen na bëlewaat na. kii nag mu ñuy foowee eh yow yaa ngi ñuy foowee nag. di ko bëlal di ko weexal di ko weexal di ko buloon ni nga koy ko buloon di ko weexal di ko weexal di ko buloon. <laughs> Ndeye Rees Warok. félicitations. merci beaucoup. ma dem ci xale yi ñoom dañ maa respecté yow moom respecté woo nga jàpp di buloo di weexam wax ma buloo may wax boo damay def. léegi nag disparition bi ak réapparition bi li ko waral mooy que d'abord bi ma si sottee ndox bii nii ma def si encre bi dafa blanc après ma sottiwaat si vinaigre bi affaire bi daal di disparaître li ko waral nag mooy que. molécule ndox yi ñoo nëbboon molécule encre bi. Mhm. léegi après ma dolliwaat si vinaigre bi. ma dolliwaat si astafurla bicarbonate bi <laughs> ma dolliwaat si bicarbonate bi. léegi affaire bi daal di. weexaat mhm. léegi nag lool noonu nag mooy que vinaigre bi ak euh, bicarbonate bi ñoom ñaar dañuy xeex bu ñu nekkee si biir. dañuy créer ab réaction léegi ñoom ñaar dañuy nekk di xeex loolu mooy tax nag kii bleu bi daal di demaat encore nga dolliwaat si encore beneen vinaigre léegi affaire bi daal di ñëwaat. léegi nag. Euh, réaction bi les molécules se s'endorment et se réveillent à un moment. boo ci defee bicarbonate mu nelaw. boo ci defee vinaigre mu stimuler ko mu yeewaat. Mhm. te on voit la transparence la couleur. Mhm. très bien. léegi nag kii réaction bi mu ngi tudd l'encre qui disparaît. Mhm. lank disparaît leen daal xam naa ko mooy lii jàngale wuñu ko suñu école jàngale wuñu ko feneen ab association lu mu tudd. Grégoire iñaane bi mu ñu iñaane man daf maa jaaxal daal nekk Grégoire iñaane gi mu iñaane donc waa bàjjan maa ne dimbali leen ñu ci ñu xool fale lan fan la toll asmaani kaay ñu xool kan moo des lan ñaar ñii kese yéen ñaar rek a des ay xale kenn du tas seen yaakaar kaay leen yéen vous me montrez quoi aujourd'hui venez venez par là vous avez besoin de ça ayca waaw day rek Comment vas-tu? Enlève un peu ton masque comme ça on Comment tu t'appelles? Fatou Gueye. Fatou yow noo tudd. Cheikh Ahmed Tidiane Wane. Cheikh Ahmed Tidiane wan ak Fatou Gueye lan geen indi. Rebo. Rebo. Rebo bi ni nga ko wàccee fële. waaw kaay ñu foofu. déggal loolu foofu moom bu ngeen paree di ngeen utaat findi feer. kii doo leen ko xëccal kër gi. yóbbu kër kër gi kër gi. Fatou fi nga taxaw yaa ngi taxaw ci kanam caméra bi kenn gisul <laughs> kaay taxaw ni <laughs> venez par là. alors ce robot sert à quoi et fait quoi vous lui faites faire quoi. moom fonction dox day wax jeu de lumière. day dox. kii ron yi nu muy doxee. day dox kañ. yow loolu dëgg day dox. Mm, day dox waaw wàcce leen suuf ñu xool. Ah eh, man man man tamit wax comme nit. wax. Mhm. lu muy wax ni moom day day reetaan ni instant te moo ngi waxaale mais aussi tamit comme animaux par exemple chien. attends rëboo bi dangeen ngeen ko jënd. <laughs> waaw mais ñun defaruñu ko. dañu ñu jox pour nu jàng si. d'accord c'est quoi la particularité de ce robot. lan moo lan la am lu spécial lu ngeen ñu bëgg a wan. mooy jeu de lumière yaa ngi nii te moom tamit daa super intelligent. dafa super intelligent robot bi. waaw. waaw léegi moo ngi dox. léegi. day daw. ça filme. merci xaaral eh, kaay fii. kaay fii bul foofu da ngay yow yaa koy manipuler nii. ba te dur. léegi. léegi nag xam nga wax loo nu mu tudd. émission télé bi da ko xam. kii ni mu ñemee yàlla nga ni wax loo ko émission bi Rebo émission bi nu mu <laughs> sa papa la tudd. <laughs> sa yaay nu mu <laughs> kuy sa

laa ilaha illallah non kii wax CSD les enfants venez on va faire le plateau de la femme le monde venez science ngir les grands les grands enfants ah, ah. CSD.org CSD kase aussi tamit nga si jàngale mooy codage. Ah, codage c'est à partir codage boobu. codage mooy programmation. programmation la programmation mooy loo programme robot bi robot comme ça pour mu wax ni ñun tamit dañ ko programmé mooy codage aussi léegi nag si à partir codage boobu ngay jàngee na la ñuy defaree la mooy maison intelligente mu maison intelligente mooy kër boo xamante ne lépp automatiquement lay daw amu leen kër boo xam ne dépense bi automatiquement lañ koy jox. <laughs> micro bi lépp automatiquement lay daw lampe bi day. tàkk di fay les enfants venez derrière automatiquement. lampe bi day fay di tàkk automatiquement système de ventilation bi tamit daa automatique. tout ça c'est à partir de codage. et vous avez programmé ça. à partir de ce robot qui vous a permis d'apprendre ça. Mhm. allez vous mettre derrière. imprimantes yi pare na léegi yéen Pape pare na wala. imprimante bi pare na bi defaroon nañu benn vase. léegi damaa bëggoon Pape Sidi. waaw xale yi nekk fi yëpp. ñu uh-huh. tàccu. Badiane Mané. Grégoire. Euh, tonton Laay. ak caméraman yi ak équipe technique bi yëpp. ndax ñoom ñoo tax. may ñu encore trente minutes. Uh-huh. bu leen neexoon ñu bañ ko. mais nous ont aidé à mettre en valeur cette association. Uh-huh. je rappelle lii du école. c'est une association. qui forment des jeunes. Et la directrice s'appelle docteur Khadissa un mot un message. donc euh, comme tey moom damaa bàyyi xale yi waxal seen bopp ndax comme am na ñu bëri commentaire yu ko wax sax donc boo xoolee jàng ak sa kàllaama na sa kallaama bi nga dégg dafa am solo. Mhm. donc ñun atelier yi ñuy def nii yëpp dañ koy def wolof te dañ koy def dès basage donc boo gisee fii nii Sénégal dañ tàmm peut-être ku créer rek gars yi foog ne dafa. c'est extraordinaire quoi alors que lii nii xam-xam bi gars yi di di wane nii c'est xam xam la boo xam ne dafa accessible dès le basage mhm. il faut juste que ñu xool méthode yi nga koy jàngalee. xool nu ñu koy defee de telle sort que bu ñëwee mu mën a changer éducation bi ba wane xale yi seen génie créatif. donc te ñun nag siège yi si lool la ñuy yëngu association lañ bëgg nañ nekk école mais SAE association lañ. donc te boo xoolee te science ñëpp xam nañ ne science dafa am solo. si biir mhm. te réew mënul jëm kanam. te amul science te peut-être li may kii mooy ma remercier parce que xale yi tamit ñu am xam-xam ñoo leen encadré donc ñun ñu ngi ci équipe encadré ñi ngay gis ni ñooy animateur siège yi ñoo leen di jàngal. waaw venez venez venez venez les gars. derrière Pape Oumar tout le monde derrière Pape Oumar. les animateurs derrière Pape Oumar yéen paa yi ngeen di jàngal ñun booy ñu tax donc voilà ñii ay étudiants lañ ñenn ñi sax ay entrepreneur lañ bàyyi seen liggéey ñëw di leen jàngal mhm. donc si cadre micro jardinage yi benn centre benn espace micro jardinage lañ koy defee Wakaam seen encadre mu ngi tudd Pape Gueye te kii nii si cadre poterie bi ki leen di jàngal beneen association la bu tudd centre Colombin donc ça veut dire que ñun suñu atelier yi ñuy def dañuy ànd ak nit yu bëri ñooñu tam bu ñu ñëwee ñu jël seen xam boo xam ne normalement xam boobu dafa war a dugg si école yi mais école boo xoolee di nga koy defee nii dafa bu yàggee day soob xale waaw baaxul dafa obsolète donc léegi nag ak tamit peintre yi nga xam ne ñoo siy jàpp